ni Amadou dafa poser des actes yu war a tax mu war a yu mën a teexel yu war a tax moom mu war a rassurer déedéet waxuma loolu de dama ni mm. déedéet waxuma loolu dama ni euh, man yàlla def na Amadou euh, en tout cas par devoir su ma gisee ne dara daf ko war a def surtout lu war a jëm ci président dama koy wax defal di defal mais li ma ci mën a conclure mooy lu président def rek ñun fi mu ne may mun a man dama waat ne dootuma defati lu naqadi Macky Sall waaw boo waxee Macky la léegi lu président man lu mu def ñu ànd ci président boo waxee Macky Sall bu yeewoo sol benn pattu dàll sax ñu sol benn pattu dàll mais boo waxee Macky Sall la nga wax a Amadou Ba réitéré na sa loyauté posé wu fi benn acte tendant ak croire que jàppalewul président il est au front il reçoit les syndicats ñëw na fii xam nga invité nga ko fii il est au front il reçoit les syndicats il se bat euh, comme un chef de gouvernement lay mais lan loyauté euh, loyauté mais lan ngay wax tamit les gens dans votre camp yi nar anéantir les chances de votre candidat. xam nga man damay éviter di wax ci loolu. parce que dafa am lu ma ci fi waxoon. <laughs> loo fi waxoon. bi ma waxee ne il est amor. man maa waxoon loolu. ci tu l'as yaa ko waxoon yaa ko dindiwaat. waaw da nga ko wax nga dindi ko déedéet dindi ko. da ko wax ñu yuuxu nga tiit nga dindi ko. déedéet dama wax ne <laughs> déedéet dama déedéet déedéet may mun a. da wax ñu yuuxu la. nga tiit nga rocci ko. waaw ah, ah, mën naa wax man naa wax. vas-y. déedéet ma ko xam nga lu ma wax. waaw dama ñëw fii ci yow fii. Eh. passé nañ ci mag yow dix minutes. di wax ah mooy Souleymane di nga wax mu nga ma la man ba léegi français laa lakk lu ma wax ne il est dama wax ne il est mon à deux cent pour cent. loolu laa wax ma ni mais dafa war a dajale jabooti Macky Sall dafa war a ubbi buntam dafa war a ubbi téléphone dafa war a wax ak nit ñi dafa war a yëngatu njaxlaf ndax dafa amorphe amorphe nag boo ko déggee moo ku mooy ku fireekuwul mooy ku yëngatuwul mooy ku sawarul loolu laa wax waxuma leneen ñu ne danga ko xas ma ni léegi bu may waxati damay seet lu may wax di euh, mag Amadou dafa yàgg dafa yàgg may mun a Amadou bindal naa ko programme bi muy dem nekk mairie Dakar bindal naa ko programme stratégie de campagne bi muy dem mairie Dakar bindal naa ko stratégie de campagne bi muy dem présidentielle président Macky Sall nag moo ma ne naa topp ci ginnaawam ma topp ci ginnaawam moo ma ko wax ma topp ci ginnaawam. ñun président Macky lu ñu ko deseel parce que lu ne jox nañu ko. comme leen tànnal ngeen topp. lu ñu ko deseel man de bu ma nee Amadou la bu ma Amadou nax te loolu bu fekkee message bu may lancé. Mhm. samay sama rakk parce que samay lu ñu ci ëpp samay rakk la. Mhm. ñu ci ëpp samay rakk la. Mhm. sama rakk la Mambay sama rakk la lu président wax ñu ànd ci def ko parce que loolu mooy suñu salut. lu président wax ñu def ko pour le moment waxuñu leneen. loo loo daf la ngeen moom mooy seen candidat. ah loolu lañuy wax di. merci beaucoup waxuñu leneen may mun a. merci dernier moom tout dernier mot. sant yàlla. Hmm. sant sénégalais yi di jéggalu ci wax ji parce que dañu tollu moment yoo xam ne may mun wax dafa jafe loo wax ñu interpréter loo wax ñu am lu ñu ko jëlee loo wax ñu am lu ñu ci gis. man nag j'ai un grand défaut c'est que lu ma xalaat laay wax te nu ma ko xalaatee laa koy wax. ne changez pas. waaw ku ma ci tooñ daal maa ngi lay jékk maa ngi lay balu àq. nii lañ la bëggee bul changer reste reste toi-même reste vrai merci beaucoup Souleymane. C'est le plaisir est pour moi. Euh,